mbokk nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com am nañu mbégte àndaate yéen ci invité de la rédaction tey jii nag ñu fas yéene ànd ak euh, Adama Dieng ñu ko xam ci Adama Dieng wax sa xalaat euh, jiite tamit euh, mouvement bi nga xam ne moom la ñu wax Macky moo ñu doy nekk tamit responsable politique APR fi nga xam ne nag moo di ci département bi sëñ Adama ñu ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoo nga xam ne ñoo lay topp ci 24actu point com. waaw bisimilah inna wa ma tawfiqi illa billah rabbi sarax li sadri wa am li loolu waxlul tamit li lisaani yat foo xawli Ousseynou maa ngi lay fay di nuyu waa Sénégal di nuyu waa àddina di nuyu tamit ñi nga xamante ni ñooy topp site bu mag bi macha allah seen 24 actu euh, di am mbégte contentement bu rëy ngir ñëw wuy si sa invitation pour ñu partager lu bëri bëri ci actualité nationale ou internationale wala sax au niveau départemental. voilà ñu ngi leen di Euh, ñun ci la ñu bëri xamee ndax mën nga dikkaat ci loolu avant ñuy tàmbali yeneen ponk yi. effectivement Ousseynou mën naa ci ñëw mm-hmm. mais balaa boobu rek nga baal ma ma ci occasion bi di jaale Serigne Cheikh Béthio Thioune mu fi jógee ci semaine bi passé mm-hmm. ak tamit suñu bàyyi professeur Fallou Cissé vraiment mm-hmm. di nekk koo xamante ni mu ni monument la woon ci senegal mu mel ni bibliothèque bu rëy rëy la Sénégal ñàkk euh, bu loolu jàllee nag wax sa xalaat bi dafa nekk loo xamante ni bëgg-bëgg mooñ ci dugal depuis 2012 wala avant loolu sax yàgg nañ ci trop. impliqué wu ci di ci dem wax dëgg yàlla ba Sénégal yëpp ràññee ci. saa boo duggee ci rajo bala nga wax sax ñu ni kooku Adama Dieng la. Mhm. Euh, vraiment mu nekk loo xamante ni dañ ci fier parce que liñ ci dugal dara lu dul euh, fexe ba Euh, toujours di jàppale président Macky Sall ci li nga xamante ni euh, da ko war a yëg te yëgu ko parce que tamit toujours euh, état yi dañuy am problème de communication mais tey bu problème amee Touba nga dugg ci rajo ne ah problème sangam de am na Touba dëkk fi mbedd sangam war nañ fa def assainissement war nañ def nangam war nañ def def tali nangam su ko état bi déggee su ko réalisé day mel yow la nga waxoon président da ko dégg loolu bokk na ci tax ñu gën ba tey yàlla dogal ñu sama politique ci président Macky Sall laa ko tàmbalee. ci laa ko tàmbalee. mais nag yaa gën dugg ci wax bi mais li ma gën a marqué ci politique daal. toujours sama carrière ci ma ko tàmbalee ci président Macky Sall mosuma jaar ci beneen parti tamit. ok kañ crédit ngay <laughs> ci aussi. ah non <laughs> non non. gars yi yi dañ duñ dugg noonu. parce xam nga xam nga gars yi moom dañuy tooñ rek li ñu yaakaar rek la ñuy wax. Mm-hmm. mais wax moom. Mm-hmm. jàpp naa ni euh, nit ku nekk yaa ci dugal sa bopp

comptable bi moo lay dugalal crédit wala keneen est-ce que bu boobaa wax sa xalaat lay doon wax du wax xalaatu jàmbur est-ce que. <laughs> non xam nga du mën naa bañ a nekk sa responsable parce que tamit euh, nit ku ne lépp loo nekk rek ay nit dala cee fekk. Hmm. waaw te nit ku nekk nag li nga mën a li nga li nga nekk di ci liggéey rek ci nga mën a def lu baax. yenn saa yi tamit am responsable boo nga salué nuyu ko wàññiwut dara. Hmm. comme ni may def ak le maire ay maire yu ñu ngi wala mu Hmm. Eh, ñaata membre lay drainer ak hmm. euh, am naa ci contentement bu rëy parce que mouvement bi ñu ngi ko lancé euh, vendredi le 24 décembre ci 2000 euh, j'espère que 2008 la waaw. 2008 waaw ah. théâtre de verdure de Mbacké. ok kon hmm. déjà loolu moom na. waaw yàgg na parce que léegi mu am deux ans. membre ah mouvement bi membre yi bari na. bari na ah. trop macha allah. waaw bari waaw. bari d' accord gis nañu tamit jàll na vraiment mais nag dañ leen cee bàcc ci Touba nan ngay analyser défaite boobu. waaw jërëjëf Ousseynou question boobu am na solo parce que tamit action élection yi ci Touba dafa war a yitteel koole mbooleem koo xamante ni politicien nga surtout maa ngay ndaw au niveau ci commune bu Touba. parce que dañuy jàpp ni président Macky Sall toujours muy nekk ci ay élection di bëgg di wut Touba te mënu ko gagné. loolu nag jàpp naa ni kuy responsable ci Touba rek war na la engagé war nga analyser tamit situation bi lan moo ko waral. Mm-hmm. man nag jàpp naa ci ñaar bi ci njëkk moom moom président Macky Sall am na ci part de responsabilité. moom am na ci responsabilité. comme lan comme lan. responsabilité bi mooy. Mm. dafa war a xàmmee toujours ñi nga xamante ne ay combattant la. Mm. ñi nga xamante ne toujours ñoom ñoo ko mën a apporter dara. kon da jàpp ne président dafa xàmmee wul ñu koy xeexal ak ñu koy liggéeyal. effectivement loolu am na am na ci ñoo xamante ni lim yor lañ bëgg waaye bëgguñu nabam. vraiment loolu dafa am ñun ñun ne ci biir département bi ak ñun ne ci biir dëkk bi mënuma citer kenn mm. waaye ku dégg li may wax te xam ne yow mi impliqué wu di nga xam ne yow mi yaa ko moom parce que président bu jëlee ay moyens yi nga xamante ne jël na ko nit yaakaar jox leen ko li ñu war a wàcc ci mm-hmm. nga xamante ni jàpp nañu bu ñu leen jàppalee ñu man dara ñuy fam ci ñoom jàppale leen mm-hmm. waaye bu président amee ci yaakaar yëkkati ay moyens teg ko sa loxo ba pare nga jël ko di ko jox ñi la neex mm-hmm. wala nga toog ci sa salle di recevoir mbooloo mu ñëw bu ëllëgee ñeneen ñëwaat loolu président dafa war a impliqué toujours ci ndaw ñi ñi nga xamante ni toujours ñoom ñooy nekk ci sarax yi ñooy nekk ci ngénte yi ñooy nekk ci koñ bi toujours ñoo fay nekk ne ci association yi ne ci daayira yi ñi nga xamante ni ñoom la président war a dooleel ñu mën a gañe dëkk bi waaye fii ak mi ngi jël borom saal yi hmm. toujours def bi borom saal yi du ma du ma ci commentaire ah, borom saal yi xam nga ko problème la bëgg euh, responsabilité na di nga wax ñenn xam ne euh, mbir ah. borom saal xam nañ leen Adama Dieng yorul saal hmm. Mame Goor Aay yorul saal hmm. Xaas Mbay yorul saal les vrais combattants yi nga xamante ni président bu ci investir gagné dina leen xam. Euh, responsable yi fi gën a fës bokk na ci soxna moom man daal ñooñu man daal du ma ci tudd du ma ci tudd kenn. Hmm. waaye président bu bëggee gagné. Hmm. dina góorlu ci ndaw ñi. ndaw ñi daal bu leen xeebee dina ñax parce que li fi am ci électorat gis ne man gëm naa ndaw ñee ko liggéey. Hmm. mais dégg naa Moustapha Cissé Lo na wax ne affaire fi ne amul maanaam sambul maanaam li euh, jaxasoo bi ci am est loolu tamit euh, du doo ngeen am responsabilité yéen nga xam ne yéen a ci biir. non affaire moom am na ak jaxasoo waaye nag moo parti yëpp ñoo yem nag parce que tamit parti pouvoir moo bindoo noonu parti pouvoir mu am coow waaye essentiel bi daal mooy li ñu war a def mooy dañu war a organiser wu mën a fexe bay gañe bay gañe te ñàkk gee gañe responsabilité dafa bari ñi seen bopp ay leader am nañ ci responsabilité président Macky Sall am na ci part de responsabilité. parce que moom bu fekkee ci ay réalisation li ko war diggante ak Touba lépp mi ngi koy def. waaw moom président Macky Sall ci li ma jàpp. Hmm. parce que jàpp naa li mu def ci dëkk bi néew na président mag bu ko fi def bien que président Abdoulaye bi ko fi jiitu jàmbaar la. président def ci dëkk bi bari na. parce que dafa jël projet faaram bi gën a mag muy autoroute Ila Touba indi ko Touba. waaw yow yaa ko jàppee autoroute du Sénégal waaye waaw mais léegi damay laaj gars yi. <laughs> nañ boobu tey jii boo fa demoon jëm Dakar bind ñu jox la reçu reçu ba nga cee gis autoroute Ila Touba lañ ciy def. Hmm. tey Touba yaakaar naa génnul ci Sénégal. kon ñooñu loolu mooy seen tontu. beneen bi ci desit muy euh, assainissement li mu def ci dëkk bi vraiment lu am solo la bien que fépp dëjut ñu ngi laaj feneen. mais teewul nawet bi euh, loolu moom dëgg la loolu moom dëgg la parce que tamit président lu mu def def gëm naa ne mënul assainir Touba ak yëpp waaye nag bu ñu assainir yenn milliers bu ëllëgee ñu def feneen parce que nag nañu bàyyi xel ni assainissement ay milliards ñoo koy def te yëkkati ay milliards di ko sol nag président bëgg réewam dëgg-dëgg moo koy def comme ni ko président Macky Sall defee ci Touba. te it euh, dañu war a def ci Sénégal lu bëree bëri ndax boo gisee Bambey la ñu fa def ci assainissement def ko Kaffrine def ko ci banlieue bi ak yeneen projet yi nga xamante ni toujours mi ngi développé ci dëkk bi loolu day war na njiitu réew mi am na gëdd boo xamante ni jox na ko assainissement boo xamante ni ña ko fa jiitu bu ko defoon kon jàpp na ni kon Sénégal dina weesu fii loolu doyu ko mu ñëw ci wàllu tali yi kenn ku ne gis na tali yu am solo yi nga xam ne def nañ ci Touba ci bi liggéey ci dëkk bi ay tali yu bëree bëri boo dikkee tali bees mën naa joxe exemple deux voies yi nga xamante ni dem na ba Ndindi yooyu yëpp yaakaar naa ni ay réalisation yu am solo ci dëkk bi mu jël escadron gendarmerie bi nga xamante ni Touba kenn mënu woon xam désordre bi fi nekkoon ñaari fan ñett ñu la toñoon benn marché mais bañ installé escadron bi ba nëgën ñuy def ay patrie boobaak léegi lu bëree bëri saafaraw na leen daal laa koy interpellé euh, raafal yi ñu leen di raafal de non raafal dëkk dafa war a am sécurité. Hmm. tubaa ni mu ubbeekoo bu amul sécurité. Hmm. toujours jéey dafay bari. mais dëkk bu am am sécurité moo gën bu ñàkk sécurité. voilà euh, wax nga Touba ak assainissement gis euh, na ko ci. waaw liggéeyu maire bi nag jàpp naa ne am na lu def fay am na lu des. Hmm. te li ma li ma gëm mooy li li des moo ëpp parce que li des moo ëpp mooy gis nga assainissement état bu defaree ay canal ba pare assainir ko. Euh, gérer ko maanaam di euh, déboucher canal yi loolu mairie la war kon jàpp naa ne moment bii ñu toll nii mairie bu Touba waroon na fexe ba mboolem fu ab canal nekk mu topp ko dindi la nga xamante ne moo cay suuf dindi mbalit ma ba mu set wécc tiire caniveau yi ba nga xamante ne tey ji bu tawee mu ndox mi di kee mën a jàll te hmm. man loolu gisaguma ñu tàmbaliku néew ma nag amul mais gisaguma ko kon maire bi li mu war a def defu ko maire bi li mu war a def naa dama ne dama li des moo mais mooy li mu war a def defu ko rek parce que bu fekkee ne ay caniveau yoo xam ne ñoom ñoo ko war a sécate ñeneen di leen ko sécatil mooy li defu ko parce que yenn saa nga romb ay association ci biir Touba ñuy sécate yi bi ñoo nekk foofu hmm. Touba 160 association ñoo nekk ci biir dëkk bi hmm. mairie bi na leen impliqué hmm. ci ci Touba mooy dëkk bi nga xamante ni warul woon a taq dëkk boo xamante ne chaque alxames jigéen ñu bare. Hmm. chaque alxames wala chaque ajjuma association yi bale. Hmm. kon jàpp naa ni war nañu mën a góor góorlu ci dëkk bi. Hmm. jàpp ci liggéey ba nga xamante ne dëkk bi du dara lenn lu ci naqari sëriñ bi du ci am. loolu mën gëm naa ko. beneen bi ci desit muy. Euh, li nga xamante ne mooy kanaal yi. bu jigéen ñi. ak nit ñi ñëpp dañ ci am part de responsabilité. kenn warul fekk ab canal bu ne sa buntu kër nga jël ay boppi xar wala ay. boppi di ko ci non kenn warul naan kaasu café mm. ba pare ñëw sotti ko ci canal bi. Mm. nit ñi dañu war a am responsable dañu war a jàppe seen bopp ni ñoom ñooy le président de la république. Mm. mais est-ce que ki naan sànni tamit bu fekkoon ne xëy na am na ay poubelles yu nekk ci wetam. effectivement loolu responsable le maire la. wala ñi nga xamante ne autorité locale yi. parce que euh, dama gëm ni Touba. fépp fu waay jaar. 30 cinquante mètres yoo dox war nga mën a gis benn poubelle. mais yow boo fekkee da nga Adama Dieng dafa jënd kaasu ataaya naan ko téye ko naan ko ba pare amul fenn fu mu ko sànni mais da koy sànni ci mbedd mi kon état bi dañ ko ci am responsabilité président Macky Sall bii passé erreur d'investissement moom la doon rattrapé mandaa bi ñu nekk nag changement de mentalité la laaj maanaam faw ñu changé jikko yi ci côté yëpp boo gisee tey jii bi mu jë bi mu defee prêter serment li mu njëkk wax mooy faaw ñu changé comportement yi ak ci côté yëpp loolu nag kenn waru ci jiitu waa hmm. ndax fu ñuy xoolee lu baax rek ci Touba lañ ko war a rey. Hmm. kon war nañ fexe ba jàpp ci dëkk bi yóbbu ko foo xamante ni tey jii bu sëriñ bi dikkaatoon du am kersa. Hmm. kenn kenn ko ne war a jàpp sa bopp ne yow yaay le maire de la ville de Touba. kenn ko ne jàpp sa bopp ne yow yaay le président de la république. am police sax a am. ok nee nga changement ñu soppi. ñu doon jiiñ euh, Moodu Mbacke Bara Dolly te yooyu ay responsable ñoo ko doon jiiñ benn xale. Ah, loolu da wax dëgg yàlla ndax loolu ci sori. Hmm. parce que ni nga ko déggee rek noonu laa ko déggee. Hmm. waaye daal li solo mooy. Hmm. xale bu leer ñu ngi koy ñaanal mu feeñ jàmm. mais wax dëgg yàlla boobu information la mënuma cee sori parce que noonu rek laa ko déggee daal. mais nee nañu ay responsable ñoo leen ko ñoo koy jiñ. ah xam ne nañu moom daa xaw ci euh, ko ko jiñ na ci jikko yu rafet yoo xam ne waroon nañ ko mën a defante ci seen biir. ah man daal li ma ciy wax. Hmm. commentaire bi ma ci am mooy. Hmm. comme xale bi dafa réer. ñu ngi ñaan yàlla mu feeñal. mu feeñal daam comme jiñ nañ ko ko. Hmm. def na conférence de presse weddi nañ. gëm ni loolu moo am. gëm nañ ko ña ni leneen la moo am moo gëm ko parce que àdduna loolu moo fi am lu fa waaye mën a wax rek nit ñi dañ koy jàngal. waaw ñii dañuy gëm lii ñii gëm lee. waaye man li ma gëm daal mooy suñ mur xalaat nay xelam nekkul ci yooyu sax. loolu laa gëm voilà ñu avancé très rapidement wax ci actualité nationale bi Euh, euh, mais ñu bëri nag euh, moom vraiment wartoon na am. xalaat nga ci amee. waaw xam nga jàngat bi ma def nag ci poste premier ministre président Macky Sall moom mooy yenu lépp hmm. ndax damaa jàpp ni ki nga xamante ni dafa am premier ministre nga xamante ni dafay dox digganteem ak yu bari moom mu ni dafa sentir ne ay lenteur am na ay yéex-yéex mu ni dafay supprimer poste premier ministre. mais lenteur yi que yéexu ko seetlu depuis bi mu fi nekkee ba léegi bay waaj a jeexal doo ko seetlu lenteur yi. xam nga. mandat bi président dafa ñëw ni force track lépp dafa war a barta gaaw parce que juróomi at nag dafa bëriwu président li mu war a sens ci dëkk bi dafa bëri de. ah dafa li mu war a sens ci dëkk bi moo bëri dafa ñëw fekk fi ay ay maanaam bi ci bi Macky Sall di jot étage la bu daaneel étage bu daaneel ngay àndale xeere ba yëkkatiwaat ci président ci kuréel la toll te li ko dese ci finition dafa bëri trop parce que bi mu ñëwee ci mandat bee. dafa loolu xay yaakaar nga mu xaj ci <laughs> xam nga nag àddina lépp jëgut. Mm. maam da ngay tàmbali rek bu sama morom ñëwee yeggale. Mm. loolu rek la président Macky Sall boo gisee mu tënk plan Sénégal émergent muy PSE bi nga xamante ni daf ko tëgg ci ñetti axe. Mm. muy la transformation de structurelle ak li ñuy wax capital humain ak bon gouvernance maanaam PSE bi ci diiru 35 ans lay jëm. te 35 ans moom mënu fexe fexe ba ba ba ba ba matt ko lu mu lu mu lu mu bari bari ñaari mandat mënu ko weesu. kon kooku sóoraale bu sóoraale war na ñeneen. sëriñ bi nga xamante ne fi la nekk dëkkam tey jii ba muy sanc Touba ak fi Touba yegg tey jii ba mu fiy jógee boobu bàyyil woon nii Touba mais xalaatal na ni Touba dina si fii wala dina dem ba raw fii mm-hmm. te gëm naa ne dina dem ba lépp lu baax dina ñëw Touba. voilà ci euh, poste premier ministre bi daal mm-hmm. li ma ci gis mooy lu baax la mm-hmm. ndax wax nañ ni dinañ rationaliser plus de cent quinze milliards ci di diiru quinquennat bi juróom juróomi at yi léegi cent quinze milliards yooyu xaj na ci baykat yi xaj na ci nappkat yi xaj na ci sàmmkat yi mën nañ ko renforcer ci PUDC bi pour ñu mën a yóbbu ci courant ci dëkki àll yi mën nañ ko renforcer ci yeneen ci ci financement DER yi pour mën a jàppale ndaw ñi kon jàpp naa ni président bu fekkee dafa bëgg a supprimer poste premier ministre ngir bëgg mbir yi gaaw euh, a rationaliser boo xamante ne dina ko mën a dugal feneen ah su boobaa nag jàpp naa Sénégal yëpp ñoo ko war a saluer léegi nag comme moom mooy yanu te nee na attan na ko nañ ko ko yan rek Adama gis nañu ne euh, dialogue non du question sax pression walaay du pression président Macky Sall moom la réew mi ñor rek xam nga boo nekkee njiit te réew mi ñor la loolu opposition bi boobu mën nga leen caa wuy bu dee lu baax parce que bu euh, lii leen për ñoom lii ñu wax ni président defan na ko bu yàgg te defuñu ko ndax bu ca dialogue bu njëkk ba Aly Ngouille Ndiaye dafa ñëw nii élection yi ñu génn am na ay jafe-jafe ñëw leen ñu toog waxtaane ko ñu ni ko personnalité neutre lañ soxla président Macky Sall dégg leen daal di fal ku ñuy wax ambassadeur bu ñuy wax Seydou Nourou Ba yaakaar naa it lu ci dialogue politique ci dialogue bee passé mais taxul ñoom ñu wujji ñenn ñi ñoo dem ñenn ñi ñëwuñ kon ñoom bu ñu demee tey jii ba waxaat naa président bu defee nangam ñu ñëw suba waa ñoom amatuñ pexe parce que fii la ñu dégg bi élection yi jàllee ñoom ñëpp ñu tënk seen communiqué daal ne reconnaître Macky Sall comme président léegi-léegi ki nga reconnaître comme président lan nga demee di ko wujji xanaa ñoom léegi dañoo dem ba amatuñ pexe. sart euh, euh, yi ñu teg na président bu ko defee ñu wéji xëy na yooyu la ci président fekk si leen. comme ñoom ñu ngi tudd président rek léegi kon ñoom baat boobu ñoo xam fan lañ ko jëmee gis nga communication dafa am solo ci nit. Hmm. gis nga communication dafa am solo te ay intellectuel waruñoo daanoo ndax suñ daanoo dañu daaneel mbooloo. da jàpp ne dañoo raté seen bii. Hmm. ñoom fa élection yi jàllee defuñu ñu ko opposition man jàpp naa ni opposition bu républicain dëgg-dëgg bu bëgg réewam dëgg-dëgg wax dëgg yàlla boo koy wër Sénégal pour nga gis ko fi dina xaw a jafe parce que ñoom élection doon ah na ñor waaye ñi ci réew mi ñor ñu néew la hmm. man na maa jox exemple ku mel ni Mamadou Diop Decroix dafa wax ni Karim mooy candidat plan B wala plan A mooy mooy candidature hmm. léegi ba mu demee dafa mujj bàyyi ko dem ci Idrissa Seck hmm. moo tax ñi ëpp ci ñuy wax man la réew mi réew mi ñor leen seen bopp leen ñor. Mhm. dialogue bi nag lu am solo la président dafa décréter chaque 28 mai. ñu def ko muy journée dialogue national. man nag bëgguma ñu def ko sax dialogue politique nañ ko def dialogue national. dialogue national waaw ah. ñu impliqué ci ñëpp chefs religieux yi. Mhm. waaw wax sa xalaat lan moo tax ñu man Adama jeg mi duñ ma jox talon. jox ma invitation mu ñëw. Hmm. man damay participer ci développement réew mi amul jour bu ma toog te du ma dugg juróomi rajo wala juróom-benn rajo. di wax sama xalaat ci liy doxal réew mi est-ce que président mës na la recevoir. président mosuma <laughs> non mosuma recevoir. ah bon non recevoir gu ma ko. pour yi ngay doxal réew mi kon dialogue national bi dañu ci war a impliquer ñëpp. mooy hmm. ay Mamadou Diop Decroix ak ay Idrissa Seck ñooñu moom wax dëgg yàlla hmm. woo ma man mi dialogue bi ma toog wax sama. kon daal yow noppi nga bu doon dialogue kii noppi nga ngeen dem. toog indi sa xalaat ngir ngir réew mi impliqué wu dem partagé ak président Macky Sall réew mi. Mhm. ko ñor. Mhm. te gis nañu fi mu fekkan réew mi nag. Mhm. wax dëgg yàlla ak ko yóbbu. foofu nag naa sax ñu dem ci. fi mu fekkoon réew mi <laughs> naa kon ñu jeexalee ko rek ndax euh, waxtu bi li li ci des euh, bariwul donc euh, ñu jeexalee foofu rek. effectivement amul problème. parce que dañuy wax ne bu siif neexul seppali du neex. te président bi mu ñëw en 2012 fekk na fi ay jafe-jafe yu méttee métti ndax boo gisee mm, ci plan Sénégal émergent bi nga xool li nga xamante ni ah, muy PUDC bi ak PUMA ak Promoville programme yooyu yëpp ay programme d'urgence la maanaam PUDC dañu dañoo demoon ba am ay dëkk mi ngi sax-saxee ay milliards mais président bi ne lii ay jafe-jafe dafa indi programme d'urgence boo xamante ni dafa ñëw ngir saafara loolu PUDC boobu ma lay wax lu mat deux cent cinquante forages def na ko Sénégal lu mat 786 villages électrifié na ko ñetti junni piste de ay piste de production yoo xamante ni yóbbu na ko ci biir Sénégal mais ni dafay programme de modernisation des villes tey amul benn ville bu mag booy dem ci Sénégal boo xamante ni doo fekk ay réalisation yu président Macky Sall ci ca a jóg hmm. nga dem ci Pima nga gis muy boo xamante ni dafa jël acte acte frontière yi nga xam dëkk yi nga xamante ne frontière ak Sénégal dafa yóbbu ay poste de gendarmerie hmm. leen tabaxal lépp loo xamante ni soxla nañ ko. Hmm. kon jàpp naa ni programme de rattrapage yoo xam ne président def na ko. Hmm. yooyu moo war a tax nag ñun ñëpp ñu engagé wu ngir jàppale ko. Hmm. jàpp naa ni nag li mu def ci réew mi président liggéey na fukki at ak ñaar sax amoo vision def. ndax ñun li ci gën a garaaw. muy autorité Ila Touba bi da ngay dégg sax ñu koy contesté waaye autorité bi tey jii coow li bari na de waaye léegi yaakaar naa de ku jëm Dakar ñibbi si boo dikkee Touba li ngay njëkk wax mooy autorité bi moom Macky Sall liggéey na <laughs> waaw loolu d'accord comme daal comme temps bi xat na xat na waaw waxtu bi li ñu lay wax daal mooy mm, mm. Euh, euh, ñu ngi félicité président mm. xam naa laluñu sax ci poste de responsabilité yi nga xamante ne joxu ko waa Touba. waaw loolu amul problème ñu bëri ñu ngi doon naan galo ba dañ war ak yenn responsable yi est-ce que tamit loolu du sanction ci ñenn ñi sax. non xam nga nag. wax dëgg jeexalee bu dëgg rek dee dëgg boo gañewul moom am laaj. Hmm. te ñun waa Touba gañewul bien que nag li ñu am. ah waruñoo laaj nag. Hmm. li am ci ay voix bu ñu ko amul woon hmm. président mën naa dem deuxième tour. kon loolu moom na ko sóoraale te xam naa dina ko garder. mais nag euh, ci ci boo gañewul rek. waroo laaj. loolu mooy politique. mais nag président dina sauvegarder parce que nit boo dina ñëw dina ñëw de ñu <laughs> ngi am yaakaar donc Adama mu mel ni waxtu bi jeex na ma bàyyi la nga tàggoo ñu lay seetaan ci 24 actu waaw xanaa Ousseynou di la féliciter vraiment mm-hmm. di féliciter sa cameraman yi mm-hmm. di leen jaajëfal wax dëgg yàlla te di leen ñaanal nag parce que tamit lii dafa am solo mm-hmm. ndaw bu nekkee ci réew di góorgóorlu ngir participer ci développement réew toujours ñëpp dañ ko war a jàppale kon ñu ngi leen di ñaanal site bi yàlla yokk ko ba fu ñuy dégg site internet yàlla yàlla dogal ngeen dégg leen fa kontaan naa trop ci invitation bi di jéggul na ci kàddu yi ñu fi yëkkati lépp lu ci jub ñu sante ko yàlla lu ci dëng tamit ñu xam ne ab donga rek boo xamante ni dafa jóg ngir participer participer ci mm-hmm. mm-hmm. euh, ñu ngi koy sant baax euh, di ko gërëm di la sant ci woyeef gi nga am ngir euh, wuyu suñu ci jotaay bi biñ la wooyee rek vraiment nga ñëw wuyu suñu ñu ngi la ciy sant baax di ko gërëm mu nekkoon invité de la rédaction tey nag ñu àndoon ak Adama Dieng ñu gën koo xam ci Adama Dieng wax sa xalaat waaye tamit jiite mouvement bi nga xam ne moom la wax Macky moo ñu doy ah. Macky moo ñu doy Macky moo ñu doy voilà ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm Cheikhouna Ndiaye moo nek ci caméra bi ak sëñ yi Khady Niang ci montage bi ñu leen sant baax di leen gërëm di leen jox dig day incha ci yeneen jotaay ak invité de la rédaction jërë ngeen jëf